c'était pas aussi le bon moment ñu bëri ñu ma doon laajte ana Adji Sarr dañ ko nëbb ana Adji Sarr dañ ko kidnappé ana Adji Sarr yóbbu nañ ko Gambie ana Adji Sarr defal nañ ko visa ak passeport mu ngi war a voyage pour xamal leen rek nekk woon fenn fu fii nii ci Dakar man mii ma parewul woon pour recevoir kenn ci ñi nga xamante ni ñu ngi ma doon bëgg ñu ngi ma bëggoon gis wala ñu ngi bëggoon wax ak man maa ngi doon gis tamit ñi nga xamante ni ñu ngi doon def tout pour gis ma te leen xamal ne tamit nekkul woon lenn moo taxoon ma tey sama bopp mais dama foogoon ne c'était pas le moment pour ma wax ma gis kenn wala c'était pas le moment pour ma wax ak kenn te parewul moo woon tamit pour wax ak kenn maa ngi remercier suñu kilifa diine yi maa ngi gis wax ji maa ngi gis tout maa ngi gis lépp li nga xamante ni ñu ngi koy def mais pour man dafa nekk loo xamante ne mënu ma ko woon continuer di muñ wala mënuma ma ko woon bàyyi mu sedd comme ni ko ñëpp bëggee woon te di leen wax ne tamit ba may defi lii aw ma ci woon benn intention ko Sénégal traversé moment yi nga xamante ne traversé na ko te loo xamante ne jaru ko sax woon ci loo xamante ne affaire de mœurs la woon benn sénégalaise lañ toog mu dem porte plainte am na loo xamante ne waru ci fa woon sax egg si may baaluwaat bu baax di leen jaalewaat di baalu àq bu baax a baax a baax a baax te xam leen ne tamit bu doon sama sago du ñu am sax blessé bay am ay mort maa ngi jaale famille yépp képp koo xamante ne ñàkk nga sa doom wala sa rakk walla sa baay wala quelque chose comme maa ngi lay baalu ak di la ñaanal fa nga jëm yal na fa yal na la yàlla xale arjana wax bi nag du gudd du gàtt ndax lu nekk dégg naa ko tamit mu nekk loo xamante ne metti na lool nga nekk xale bu jigéen ñu lay waxal li nga xamante ne waxal la ba waxal la loo xamante ne sax amaana mosoo koo def xamoo ko mosoo koo dund maa ngi doon dégg ne aji dafa dof maa ngi doon dégg ni aji aji saar caga maa ngi doon dégg ne taxawaalukat la maa ngi doon dégg lépp mais lépp ma toog di ko muñ pour ñëw rek pour euh, leeral yeeg Sénégal léegi ci benn mbir sama liggéey ci Sweet Beauty ak ni ma xamante kii nga xamante ne mooy ni ngeen ko xamee muy Ndeye Khady Ndiaye muy Ndeye Khady Ndiaye ñu gën koo xam ci finaa wala Estella Ndeye Khady dafa nekkoon nit koo xamante ne mën naa wax sax dafa sori si man ba lu muy wax si man sax instant bii nii mënuma gëm ne moo nekk di wax parce que lu nekk dund nañ ko maak moom lu nekk defal naa ko ko lu nekk defal na ma ko parce que nee na nit ki tamit loo ko bañ bañ nga waxal ko li nga xamante ne moom moom la moom. day xadi sama benn xarit moo taxoon ñu xamante sama benn xarit mënoon naa wax ni sax kooku sama mag la moo boole woon ak moom kooku moo ko doon liggéeyal boole ma ak moom ñuy liggéey di liggéey ba kooku arrêté bàyyi ne ma yaa ngi continuer de waaye léeg nga arrêté ñu nekk di nekk di nekk ba mu benn jour mu ne ma sama cabine wóolootuma ci kenn ku dul yow dama bëgg rek nga liggéeyal ma te yàlla tax da xam ne fii dañoo jubut te instant bi li ma jot a gis ci yow doy na ma ne ma léegi à partir d'aujourd'hui client bu ñëwati yow yaa koy teeru client bu ñëwati yow yaay waxaale ak moom yaa koy dugal après mun nga wax beneen fii mu dem maase ko mën na ko ah fii de bëri nañ mais comme da nga gis ci man confiance ba dénk ma sa li nga xamante ne mooy sa liggéey yàlla bul mës a am mbégteel ci man wala yàlla bul mësa am lu naqari ci man mu nekkoon nit koo xamante ne tamit ku naa woon la koo xamante ne ay qualité qualité yu ma gisoon ci moom gisoon naa ci moom ay qualité yu baax a baax yoo xamante ne bëgguma woon lu dul dëkk ak moom à vie parce que dafa doon dëkkal ci samay nopp ne nit ki loo am rek ak nit ki loo munti am ci àdduna te àndoo ci ak sa ngor wala nit loo mun ti am ci àdduna te du sa ñaq bu yeboo nga dem xoolaat sa bopp te liggéey bii ñuy liggéey du ma ne baax na de mais maa ngi ciy suturloo di ci dimbale ñi ma war a dimbale te man gis naa ne ku sérieux nga moo tax ma mun laa dugal sama nekk di waxtaan ak yow maa ngi dégg na ci benn côté muy naan moo ma booleeg Sonko Ousmane Sonko. ci beneen côté ba mu ne boolewuma ak Ousmane Sonko ma koy naan tey de mun naa wax ne tey won nga ma loo xamante ne amaana dama ko doon ignorer ci yow amaana bëgguma ko woon gis amaana ñëpp waxoon nañ ma ko sax ma ne noonu loolu dëgg mun naa wax ne tey tamit bëgguma sax gëm ne. ki xale bu jigéen bi may dégg muy wax ci télé yi muy wax ci internet bi bugguma sax gëm ne yow la parce que mën naa wax ne lu bari lu nekk ci man yaa ko ci def ci man tey su ma baaxee yow la tey su ma bonnee yow la parce que lu bari mën naa ko ci milieu massage wala mën naa ko ci milieu bi yow yaa ma ko def loo lu bari xam naa ko yaa ma ko def loo yaa ma ko jàngale kon ñu toogee tey ba nga olbatikuwaat di yàq sama der kon day nekk loo xamante ne mbégteel lay doon si man Ndey Xadi nee na man dama mën a duul Ndey Xadi nee na jubuma ko def ma dàqoon ndax dafa amoon rumu remarqué ci li euh, ci man loo xamante ne clients yi dañ ma doon dañ ma doon lii nii may wax ne boo nekkee sa fii sa élément muy liggéey nga présente ko say client clients yi bëgg ko mu nekk fierté ci yow ba client bu client bu dul client jinne bu ñëw danga koy woo même bu duggee sax si si di liggéey danga koy woo téléphone na ko génn kee ñëw na dafa am xaalis demal nga def lu tout pour mu fay xaalis bu bëri ba maa ngi dégg sax muy naan dàq na ma benn yoon mais mosuma dàq day xaddi mosuma dàq bu ñu ko xamul xam naa ay cli ay clients yu bari ñu ngi taxaw di ma dégg Fina lañ xam wala Estella Fina mosuma dàq suma premier problème ak moom fenn la woon mooy dama duggoon si si pour ñu ko xamul genre baignoire la boo xam danga da ciy def ay pro ay produits mu xëpp dama duggoon si jour boobu client boo xamante ne 40 000 la fayoon parce que jacuzzi 40 000 la te jacuzzi booy dugg ku góor ki day def nu yow ku jigéen ki nga def deux pièces ma duggu ba mu parce que jacuzzi une heure de une de temps la léegi cinq minutes yi nga xamante ne moom laa waroon seq ak euh, client bi. pour ci accompagner ko si lii bi si jacuzzi bi coulé na mu des quinze minutes yi nga xam ne ci la war a préparer dem sangu ji pour ma vider jacuzzi bi mu sol yére ci quinze minutes yooyu la ma woo téléphone ne ma kili am na client bu ñëw mu ngi si porte bi te nee na bëggul keneen ku tijji ko ku dul yow ma ne ko waa d'accord ma ne client bi maa ngi ñëw daa am lu may def après ci la ko client bi woo ma dem tijjil ki beneen client bi dugal ko client boobu jour boobu mu ngi fay 50 000. moo ko ne ko client bi de 50 000 la fay te mu ne ma ah waaye garaawul au moins sax yokku na beneen client bi ba woo ko téléphone na ko ki ki ma lii de nag ma def ma fee bàyyi dem yoonam léegi bëgg bëggul ñàkk client bi nga xamante ne fay na 40 000 te maa ngi dugg ak client bi nga xamante ne moo yoroon moo fayoon 50 léegi ba ma génnee mu ne ma pour client bi pour ma bañ a perdre client bi damay obligé licencier la si sa kanamam ma daal di ñibbi mu ne ma waa kon d'accord ma mu licencier si kat ci guddi gi. ma ñibbi woo ko téléphone ne ko Fina li nga def noo ko mu ne ak client bi lu mu la mënti wax yow ma nekk ak yow di liggéey xanaa sax yow nga may ma au moins ma expliqué wala quelque chose comme te yow li man client bi bu fekkoon ne sama coobere moo tax ma génn mais yow yaa ma woo téléphone ne ma génnal nga dem nga dem euh, marché ji kii beneen client bi yow la soxla ma génn mu ne ma noonu du loolu ah d'ailleurs sax suba boo xëyee rek ñëwal bul fay sax taxi bi maa lay fayal taxi dama bëggoon kese client bi foog ne comme. dañu dañu dañu lii daal dañu professionnel sur suñu liggéey te ñu duñu foowee nit parce que client yi tàmm nañ benn affaire client bu ñëw tudd bu mënti dugg ñi maasee wax xam nañ li may wax boo leen euh, defaru sa massage nu mu wari attan nañ dugg sa douche wala lii nii caméra ko dugal ko sa page pour yàq mu ne ma te man aji man du ma nangu kenn ku may yàq sama liggéey ma ne ko kon baax na waxul war sax man aji dafa wax ne Aïcha parce que man Aïcha lañ ma doon woowee foofu mu ne ma Aïcha du ma kenn ku ma yàqal sama liggéey ma ne ko ah kon comprendre naa la waaye suba boo xëyee da nga ñëw liggéey si ma ne ko waa ma ñëw liggéey si mu nekk mu yóbbu ma si beneen cabinet bu bees ne ma yow sax fa laa lay gis naa ne mën nga apporter nit xaalis te gis naa ne mën nga sa liggéey te fa demee comme que cabine boobu cabine bu bees la dina perle nga nga yëkkati ko mu génnee xaalis ma a ko waa d'accord ma continuer directement si beneen cabine bu bees ba ba ma demee foofu toog foofu ba mu yàgg après ma ñëwaat si biir kër gi ba mu ñëwaatee si biir kër gi ci laa xamante ki nga xamante ne mooy usmaan Sonko ñu dem di liggéey di dem di liggéey ba benn jour premier jour bu Ousmane Sonko di ñëw ci kër gi fekk fa woon ki nga xamante ne mooy final te moom nee na saa yu Sonko ñëwee moom mooy booleeg moom waaye saa yu Ousmane Sonko ñëwee ci ay waxam du ko yëg. nee na Ousmane Sonko tabaski 2019 la fa njëkk a ñëw te lii la fa indi woon nu ñu koy waxee mantelaatam frotté frotté bu baax la indi woon. waxaat ne Ousmane Sonko bu ñëwee foofu noonu day muuru day toog muuru ne Ousmane Sonko tamit bu ñëwaatee foofu bu ñëwee foofu noonu du bëgg sax kenn gis ko walla du bëgg sax kenn koo xamante ne kenn du ko xàmmee ma leen di leeral. kàddu yow nga xamante ni gis na ma trop ma la koy wax mais loolu yëpp du dëkk Ousmane sonk mën na faa ñëw ba des te moom sax du ko teg bët mais ñoom ñaar dañuy déggante. may wax ne nee na 31 decembre Ousmane Sonko ñëwu fa 31 décembre moom 31 toujours 31 décembre la am doom beneen fii bi ñibbi ma beneen fii bi ñu toog foofu noonu moom mu ngi woon hôpital parce que jour boobu la am doom. te moom nee na mu ngi woon suñu kër 31 décembre te moom jour 31 décembre la am doom ndax maa desoon si kër ga même sax beneen fii bi doon ñibbi mu ngi naan yéen des leen fii rek ñu mel ngeen mel ni jouru feet ngeen war a dem seen kër yi feetu ji mënoo leen sax génn kër gi pour naan da ngeen di feet nekk fi di liggéey te xam ne tey ngeen gis kenn du ngeen gis benn client parce que ku nekk ànd nga ak sa gel ku nekk yaa ngi feetu ak say famille ñu ne ko noo garaawul ci guddi googu noonu la Ousmane Sonko ñëwaat na foofu noonu 31 décembre boobu ñëw na foofu noonu ba jour boobu sax moo may moo ma moo may beneen fii bi nga xamante ne bokkoon naa ak moom xaas ba mu jënd ji ay pétale taal ko ci biir kër gi moom nee na après laa ko woo téléphone pour ne ko damay dem sama kër juste pour xamal ko ne mënoon naa laaj ndax jour 31 décembre sama waa kër nekkuñu woon Grand Yoff dañu demoon seen dëkk pour feetuwu ji ak seen yaay ba jour boobu sax maa ngi leen di woo ci guddi gi ñu may xas ne ma yow daal ne nga yow liggéey liggéey liggéey ba ba sa jour feet sax mënoo ànd ak say say njaboot dem feetu ji ba may naan yaay comprendre leen ma rek jour boobu noonu mën nañ dem Grand Yoff laajte ku mu neex ndax jour 31 décembre samay waa ñu ngi fa woon te nañ deux jours à part dem naa su ma demee fan laa jëm sama suñu waa kër jour dañoo 31 ba pare doog ñib si lii nii leen Grand Yoff ko yàlla ngeen laajte sama yaay fa mu dëkk bu fekkee ne jour 31 décembre suñu waa kër yëpp ñu ngi fa woon kenn moo fa desoon muy sama mag lenn moom kese moo fa desoon ñu waxaat ñu demaat ba mu yàgg mu ne le 11 le 11 décembre tamit ba fa Ousmane Sonko ñëwee moom moo génn Ousmane Sonko dafa sonni dem dem yoonam moom mu profitoo fekk beneen fii bi mooy dem tijji mu profitoo kooku da koo tijji gis mu avancé mu ñëw ne ma jarul sax may sonn parce que bu duggee bu duggee. su ma ko dugalee rek te mu waxaat foofu ne yoru xaalis day ñibbi parce que boo xamee ne du yow day ñibbi demal rek comme gisuma demal rek nga ti jël ko après moom ci la dégg loolu génn ne Sonko la yow lay laaj bu nekkul li ngay xam ne damay bañ noonu tey am problème wala damay bañ noonu seen famille xam ne dañuy liggéey massage kon tey mun naa tudd seen tur mais duma ko def parce que amaana sax ñooñu bëgguñu benn fii buggul di liggéey massage seen waa kër du ko xam ma ne ko encore baax na après ba ma ba ma ko tijjilee taal ak samay bougie ñoom moom fi mu ngi tëju si néegam ne ma jour boobu nu bul bul fexe ba mu xam ne maa ngi ci kër gi wala bu xamee maa ngi ci kër gi attan na dem yoonam mën na ko non t'inquiète moom pour man instant bi man kese maa nekk si kër gi mu ne waa d'accord ma dugal ko jour boobu ne Ousmane Sonko cinquante 000 la fay te 4 mai 40 mille la 50 000 la fay 50 000 yëpp laa jël dox ko final financé ma waa lu tax mu joxe cinquante mille ma ne ko ah laaj naa la ko def cinquante mille la mu joxe mu ne ma comme 4 mais yi quarante mille la bàyyil ma jox la li nga xamante ne mooy dix mu jox ma dix mille ma jël xaalis bi joxaat ko beneen fii bi parce que mosuma bëgg sànn mu moom xaalis boo xamante ne saa yu ñëwee foofu jox ma ko mosuma bëgg laal ci benn dërëm balaa muy mel ni que lu muy def seq ak man def def nekk loo xamante ne daf ma ciy jaay wala dama ciy jaay sama bopp jour boobu bañ ko bañu maasee ba pare fii bi génn bàyyi waaj mi foofu noonu ba mu paree daa dem fii bi génn ne ma noonu ma gëm ne Ousmane Sonko ñëw na fi ba dem te may may ñu benn 10 000 francs maa ngi ma ne ko ah léegi bu fekkee ne posam foofu la toll na mënuma noonu gëwuma loolu yàggul dara fii bi dem yoonam après ma woo ko téléphone ne ko yow Ousmane Sonko ñëw na fi de may na la 20 000 francs muy naan wuy sama ndey waatal man kay xamoon naa ne sonk moom moo ngi doon tagg Sonko sama téléphone laa ko doon te sama téléphone day enregistré xamoon naa ne sonk bu fa ñëwaatee def may may man leer na ma ne may na la parce que mënu seex ak yow ba pare may mayu ma xam naa la takkatu diir nga takk xel nga moom mooy wax loolu xam naa la ma ne ko billaahi wallaahi tàllaahi Ousmane sonk de mayu mooy boobu noonu dara bu dul à part bi nga xamante moom la yëkkati jox na ko te 10 boobu noonu final laa ko joxoon final moo ñu ko joxaat maa yow mu ne ma ah kon baax na boo ko waxee de gëm naa la mu ne ma kon baax na léegi envoyé mu xëyaat ci suba si woo ma téléphone ne ma ana xaalis bu ma envoyé mën na ko yow demal nga toog yow xam nga ne Ousmane Sonko yorul sax lu dërëm bu lu suukar baraada bay maye ay ay ay lii koo xamante ne du maye du saraxe ci kii rek laa ko gis mu ne ma ah kon baax na après moom mu ne ma kii de man bàyyi naa ko ay su ma demoon wax sama papa ne sama papa nga xam ne dafa bëgg Ousmane Sonko su ma demoon wax sama ne tëral naa Ousmane Sonko gis ko mu def yaramu ne sama papa amaana sax def may xaañ si ma dee benn yoon parce que du ma gëm ma ne comme nga ko rek baax na lii ko foo ko yëkkati kenn du la gëm mu ñëwaat li nga xamante ne mooy le 2 février le 2 février sama patron nee na dama doon wax téléphone dama doon wax téléphone mu dégg ku may waxal ne kooku di naan ba Ousmane Sonko ñëwee avant le 2 le le, le la ma la ma kii nii sans patron woo téléphone ne ma ay weeru 17h mu ne ma fekk sax daa amoon ku nekkoon si porte bi sonné ma tijjul kooku ba duggal ko mu woo ma téléphone ma daw jël parce que maa yoroon annonce yi jour boobu téléphone yi maa ko yoroon ma wuyu ne ko naa loo wax mu ne ma lépp loo jàppoon bàyyi ko ku bees ki nekku ko mu maase kooku nga tijjel tonton Ousmane Sonko mu ngi ñëw ma ne ko bàyyil mu ma jox ko ku bees ki. parce que instant bii nii am na ku ma waxtaanal ba pare te moom laa war a maase bàyyi mu jox ko ku bees mu ne ma noonu instant bii nii nii liggéey bi dafa tar te fi ma nekk nii dama koy fay maa ngi nii CRES te damay fay CRES journée cinquante mille la ma wax laay fay CRES ma ne ko kon baax na ma dem tijjil ko mu ne ma cuuraayal nga bàyyi porte bi noonu mu nee na mu ngi si porte bi tey gaare cuuraay nga bàyyi ko après ma dem def cuuraay pompe kër gi tijji porte bi bàyyi ko mu amaat keneen ku sone ma tijju mu nekk naat bi ma envoyé waat ko message noo ko du moom de naat bi moo ñëw mu ne ma noonu mu capturé message bi nga xamante ne moom la Ousmane Sonko na doon wax ne daf may défier envoyé ma ko message mosuma toog fenn ne Ousmane Sonko daf ma envoyé message mosuma toog fenn ne Ousmane Sonko yor naa numéro ko dañuy jokkoo pour mu leer capitaine ba ma demee tamit ci euh, gendarmerie ba ñu ma laajee dama leen wax ne mosuma envoyé message mosuma woo téléphone mosuma déggante ak moom mosuma dégg fu muy waxee téléphone tamit loolu laa fa wax après message bi nga xamante ne moom la ma Fina kii nga xamante ne mooy Fina di Estella envoyé message capturé ko envoyé ma ko ne ma non non loolu mënul nekk ndax ndax Sonko léegi moom sa waa Sonko léegi sama lépp a ngi sama téléphone ne ma Sonko léegi moom bu la waxee lii rek xamal ne que léegi dafa commencé di wax loo xamante du am pour bañ a jaar ci moo bi nga xamante ne jubul. ma ne ko ah boo xa boo ci xamee dara rek nga wax ma mu ne ma kon baax na man de def ma envoyé message ne ma mu ngi ñëw message boobu laa jël envoyé ko envoyé ko ki nga xamante ni mooy sama xarit bi comme ni mu ko waxee nekk sama xarit nekk sama frère mu envoyé ko ko ne ko garden ma lii parce que sama téléphone dafay fees mu ne ma d'accord muy message boo xam pour ma ma bamtuwaat message bi Ousmane Sonko mosuma envoyé message Ousmane Sonko mosuma woo téléphone. Ousmane Sonko mosuma ko gis fu muy waxee téléphone aussi te mosuma toog fenn wax ne Ousmane ko def ma envoyé message wala day dégganteeg man wala day waxtaan ak man loolu moom man maa koy dëggal su ko neexee ci kaw. ci mardi bi lundi bi lañ ma waxoon day ñëw ñëwul ci mardi bi ay v ay vingt une ñu toog ba ay vingt jour boobu sax ñaari client kese lañ amoon ñu toog ba ay vingt diggante dix neuf heures vingt ma ne. Euh, kii ñu suñu jànq bi ñëw leen ñu jënd ak beneen fii bi ñëw leen ñu jënd reer parce que instant bi couvre-feu bi léegi mu commencé te damay bañ tëj ñuy génnaat dinaan lii ak lii ak lii te kenn nekku si kër gi tonton Ibrahima ñëwagul kenn nekku si kër gi te bugguma ay génn tëj tëj yooyu mu ne ma ah kon d'accord ñëw leen dem ñu dem ci biir doore bi nekk Liberté 6 jënd foofu reer ñëw toog dañoo nekk di reer nekk di waxtaan toog di reer affaire yooyu ba benn instant à vingt à vingt une heures et am ku sonné ma wax euh, fii bi ma nekkaloon ma ne ko yii demal tijji mun ne ma mukk duma dem tijji ndax damay doog a ñëw yaa ma fi indi ku bees laa yaa ma fi indi demal rek tijji bu fekkee dee nga dee bu fekkee dee la nga dee boo deewee naa la ñaanal dégg nga ñuy ñuy waxtaan di reetaan noonu mu ne ko yow baax na loolu nga may ñaanal ma dem ba si porte bi ma taxaw ba mu yàgg ma ne ko waa après nga ñaanal maa ngi ko koy yuuxu noonu ma tijji parce que man xamoon naa ne heure boobu noonu. moom kese moo fa mënoon ñëw parce que d'habitude moom kese mooy def yooyu noonu bàyyi ba ay xaaju guddi wala bàyyi ba ay guddi wala bàyyi ba ay njëlloo du moom kese moo fay def ma dem tijji mu ne ma yow léegi yow booy tijji doo wax sax yow la kan ne ko man xam naa ne yow la di moo tax du ma ne yow la mu ne buñ la fi rayoon nag nooy def ma ne ko ma dee rek est-ce que du boobu moo may gënal sax dee moo may gënal mu ne kon baax ne bu ñu la di buñ ma fi reyoon man de amaana ko damay xaruwaale ànd ak yow lu ma wax ma ne ko yaa ko wax de après ma dugg mu dugg ma duggal ko parce que moom mosul dugg ci salle d'attente mu dugg si biir cabine bi ba mu duggee si biir cabine bi mu ne ma tey comme dégg naa mu ngi koy waxee ci benn point de presse am effectivement def ma wax ne tey moom du ma fi toog le de lii mooy li xew le 2 euh, le février mu ne ma tey moom duma fi toog doom yi sax passé ma maasé leen ma lu gaaw 10 minutes rek ma dem sama yoon mën ne ko kon loolu nga wax bàyyi ma wala beneen fii bi ñu defal la 4 mais bu gaaw nga xam ne da ngay teel a dem mu a ma waaw après mu ñëw ma woo beneen fii bi ne ko dugal nga maase ko mën ne ma yii yow kii ñemewu ma de mën ne ko lan ngay ragal xanaa du nit comme yow mu ne ma yow gisoo sa kanam bi nu mu ko changé ça veut dire kii nii jubul wala kii soo mu ne ko yow dugal rek du man maa la fi indi man maa la indi fii pour ngay liggéey man du ma la duggal si leen loo xamante ne da lay gaañ mu ne ma waa baax na mu ne man ko moom sax wax na ko ci interview bu nga xamante ne fast bi ñu amoon ak kii nii kii nga xamante ne mooy capitaine Touré mu ne ko aji def maa wax ne melal ni comme si xamoo ne Sonko la. noonu laa ko wax melal ni comme si client rek bu dugg comme si du moom comme si du dara melal ni comme si client la boo xamante ne daa ñëw pour maasam mu ne ma kon ba baax na après si la dugg nuyanteeg moom génnaat. jox ko serviette man ma dem di di sotti huile yi pour indi ko ak li nga xamante ne ndey eh, kii kii wax na ko kii ndey Xadi Njaay ne baay saa yu fa ñëwee frotté lay indi moom lañ koy maase pour wax ne man sax loolu noonu xalaatuma woon sax défier li nga xamante ne moom la finaa kii nga xam ne mooy Tafina wax parce que respect bi ma am amoon ci moom xalaatuma woon sax dem gendarmerie di fa wax ne Ousmane Sonko mosu faa ñëwee ak li nga xamante ne mooy lii nii forote ma dem mais ba ñu laajee kii nii ki nga xamante ne mooy beneen fii bi mu ne dugg naa c'était la première fois may maas Ousmane Sonko mu ne leen dugg naa man maa indi serviette aji moo indi huile te loolu moo boobu bëgguma woon sax parce que sama patron waxoon wax toogoon nañ waxtaan ci ba pare parce que defoon nañ face to face ba mu wax li bi ma bañ koo défier bañ ko juste pour bañ koo indil problème ma ne ko woon léegi bañ demee fii nii capitaine Touré ne ma lan moo tax waxoo ma ne ko parce que bugguma woon indi ay problème bugguma ko woon sax créer ay problème moom mi nga xamante ne mooy taafina parce que jigéen la boo xamante ne day daan doolem te doomam mu ngi fee ci crèche te instant bi dafa war a man su ma sañoo sax du ngeen ko woo mu ne ma kon baax na ci la absa kii absata absata ba wax ne carrément que moom moo indi serviette man mi maa indi huile bi après lañ koy maase ba mu yàgg mu génn ci lañ fa des li nga xamante ne des nañ fa maa kii nii nag maa Ousmane Sonko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 ak Ousmane Sonko dañuy déggante daawoon naa si dute parce que ci si ay biiru wax Ousmane Sonko daf ma doon wax yoo xamante ne daf may doon ay dut pour ma gëm ne moom ak ki nga xamante ne mooy final di Estella dañuy déggante. après si la ma si la ma ne man xam naa ne doon nit ku bon sama téléphone bi jour boobu nu sax pour bañ ko pour am ay soupçon wala quelque su mu bañ a am ay soupçon que amaana maa ngi koy enregistré affaire loolu appel whatsapp laa ko ba jour boobu noonu mu xam naa ne doo nit ku bon li tax ma wóolu la bàyyi la sama kër di fanaan hôpital bàyyi la ak sama jëkkër xam naa ne doo nit koo xamante ne dangay caaxaan wala nit koo xamante yow nga xamante ne chaque jour ma ma la wax la ci fii nii fii nii ñëpp di dégg chaque jour ma ne la yow lesbienne nga chaque jour ma wax la ko dem na sax ba ci capitaine toure ne ko kii de lesbienne la moo tax bu ma déggee ëmbam wala bu ma déggee leen nii daf may jaaxal parce que aji mi damay dégg sax muy wax téléphone di wax ay wax yu garaaw ci ay jigéen wala affaire yi ay jigéen rek laay gis muy waxtaan te testé naa ko ku ne ndax final noonu lay def bu amee fii dalay test testé ak ay clients am yoo xamante ne dañoo am xaalis ko ñooñu pour tëddee la xool ndax taxawaalukat nga wala liggéey moo la fa indi ñooñu mu la ñaa lii ni proposé ba proposé la ay 200000 ne ma aji proposé naa la ku nekk waaye mosuma mosu mosuma gis li nga gis ci yow mosuma koo gis moom moo ko wax ne ma mosuma xam mosuma am fii bu jubee ni yow moo tax ma am sañ-sañ bàyyi la sama kër nga may liggéey te li nga may liggéey yow yëpp ma wax la leen client bu fa mu mënti ñëw bu demee mun naa mën naa laa wax client yi fay ñëw yëpp te bu ñëwee nombre bi nga xamante moom la ñuy fay nombre boobu ngay verser sama jëkkër ci guddi gi mën na ko fina mënuñu mënuñu dëkk di tooñ yàlla ba pare teg si di def loo xamante ne mën na ko gis nga massage bi ñuy def moom ah mu nekk tooñ yàlla la parce que lii nii lii nii binduñu ko si fenn ne dafa légal wala binduñu ko si mu ne xam naa loolu ku wax ne massage baax na da ngay wax lu la neex mu ne ko mu waaye xam naa ne doo nit ku bon xëy na lii ndogal la rek boo xamante ne daf laa waroon dal la mën na ko man kat instant bii sax dama bëgg a dem pour débrager wu une bonne fois pour tout parce que lii nii bëgguma sax mu jëm kaw ñëpp kenn di xam ne dama ëmb wala lii nii mu ne ma pour ngay dem jarul ngay dem jour boobu moo ko yëkkati ci kawam waxaat na ko ne ma jour boobu noonu jarul ngay dem ne ma muñ nga jël koka nga def si trois cuillères de kafe nga naan ko nga tëdd muñ nga tëdd après tonton Ibrahima dina àll yi nii tonton Ibrahima sax bu mu bu mu xam ne sax yow instant bi loolu ngay def wala bu mu xam ne sax dangaa ëmb mën na ko waa baax na amul problème jëleen mu ne ma dindal instant bii nag couvre-feu jot na mënoo koo def mais mën nga xaar ba suba nga bañ a dem seen kër di ànd ak sa yaay wala sa yaay di la xamal wala affaire mun nga xaar bi nga jël coca ak ñetti cuillère kafe nga dindi ëmb bi su ko defee problème du am kenn du la xamal mën na ko waa kon baax na ba léegi waxaguma ko ki nga xamante ne moo ëmbal ñu xaar ba ci suba si non su même jour bi su même jour euh, ki nga xamante ne mooy jëkkëram fekk ma ci kaw ma toog parce que tellement dama angoissé woon mu fekk ma ci kaw ma toog mu ne ma carrément aji man xam naa nit ku baax la te li tax sax man ma am confiance ne yow nit ku bu baax nga yow danga ñu ko woon fi naa gaawuta am kenn confiance ci moom te yow kese c'est la première fois ak ki fi teyee ba bañ tëjee suñu cabine bi ba léegi ça fait trois ans la moo xaw ma quatre ans fi naa mosul am confiance comme ni mu envie bàyyi këram nii dem jox ko benn xale boo xamante ne bokkuñu dara mu koy liggéeyee di ko weesu xaalis ma ne ko ma waxaat ma ne ko li ma wax tata Fina rek laa lay waxaat soxlawu ma dërëmu nit. mu ne waaye kër gi de mun nga fee toog ba am doom moom tonton Ibrahima ma wax loolu mun nga fee toog ba am doom jarul ngay dem seen kër wala yow sax yow nga ne da ngay dem sa kër sa kër ñoom yaay kan moo lay yóbbu ma ne ko ah man de xamaguma kan moo may yóbbu mais maa ngi woo sama frère bi ba xool parce que jotaguma boobu ba léegi maa ngi koy woo jotuma ko.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 di ñaanal yi nga xamante ne am nañ ay gaañu gaañu ci événement bi nga xamante ne moo passé ma leen di ñaanal yàlla yàlla leen yàlla yëkkati delloo leen ci seen activité di wax ne de su ma xamoon ne lii de fii lay mujje wala lii yépp am dina ci am dina kon dinaa boole lu ma neex ak lu ma naqar yépp toog toog si may wax ne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 ak jacuzzi mu ne ma defal ma tonifiant parce que ma yàkkamti mën na ko kon tonifiant de vingt mille francs la mu ne ma waa d'accord ci la ma jox vingt mille francs bi man dem jox ko ki nga xamante ne mooy sama patron ma indi huile bi nga xamante ne moom la ñuy maase indi serviette tëj chambre yi taal ay bougie tëj chambre bi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 mu ne ma yow nga foog ne man kilifa bu toll ni man dinaa jóge ba sama kër bàyyi fa samay jég ñëw ba fii nii simee ko comme ni ma yàlla bindee juste par tey nga xamante ne ay yéen massage dul rek ngeen di def lu fi siwi yéen a ko fi si war wala lu ngeen xam wax dem waxi jóg man balaa ñu nga may yóbbu dina am li mu bëgg ba pare mën na ko man man li ngay wax ni xaw ma si dara mën na ko xanaa danga see si ak fii yoo xamante ne dañoo teyewul seen làmmiñ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 perdre client boo xamante ni dafa mel ni man mën na ko ton léegi ngir yàlla rek bàyyi ma parce que maa ngi bëggoon def la tout pour échapper mën na ko ngir yàlla rek baal ma ci pour beneen yoon sax boo ñëwee au moins ñu pro parce que man mosu man xaw ma góor xaw ma lii yëpp ngay def mu ne ma dangay fen après si ma xëj xoj ma lii ma ci ginnaaw jël loxoom dugal ko sama biir awra awra gis ne li ma ko wax dëgg la mu ne ma laa ci ma doon envie de plus mosuma ko woon xalaatee si jigéen yoo xamante ne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 loolu mu ngi nekkoon 2020. ba mu defee lu ma def ba pare dem yoonam ne ma carrément li ma fi def foo ko mënti wax ci àdduna kenn du la gëm ndax instant bi même boo demee porter ma plainte tamit.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 ba ci guddi gi ma toog ak sama xarit yi nga xamante ne moom laa doon liggéeyal foofu ñu may naan toogal man leen bàyyi leen rek ma dem mu bàyyi ba ci guddi gi ma yóbbu ñoom ñëpp ci Brioche Dorée ba ñu jënd après man ne leen sama bagage yi nga xamante ne ñu ngi ci beneen cabine bi ma wax beneen fii bi na ma ko indil ma daal di génn si guddi gi dem sama yoon daw ñu toog ba ay cinq mois daw ma mooy.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 yow demal kooku ba mu demee après ma woo ma woo Fina mu ne ma ki ma yebal fii de ñëw na mais yow koo mu booleel dama koy jël ndax xale bu baax nga xale bu yaru nga ma ne ko waa ñu toog ba deux jours xaw ma quatre jours mu woo ma ne ma sama fii bi de dafa am jëkkër ndax mun nga dem mun nga ñëw fii nii remplacer ma ko ba mu ñëwaat ma ne ko remplacer mu ne ma ah waaye mu ne ma waaye de massage fi amoon yëpp amatu fa parce que dañ doon def ay massage corps à corps dañ doon def massage deux dañ doon def lépp foofu noonu mu ne ma yooyu yëpp amatu fi massage corps à corps tuñu amatu fi deux pièces amatu fi yenn yi fi amoon yëpp amatu fi léegi tonifiant la ñuy def relaxant savonnage ak jacuzzi mun na ko jacuzzi bi mu ngi am ba léegi ci jacuzzi bi des fois da ngay tase koo xamante ne dalay làmbatu nekk ci biir jacuzzi bi def tuñu di la làmbatu mun na mënoo ñëwal fii nii sax léegi weer laay fay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 samay docteur nee nañ ma mun naa am li mun na am mal chance que ñu opéré ma te buñ ma opéré fa laay des te yow rek laa wóolu sama biir kër ma ne ko waa kon ndax d'accord naa mu ñëw mu ne ma benn loo xamante ne dalay jaaxal rek wax ma ko ma ne ko waa ma ñëw si biir kër gi dama ñëw yàggul dara le le 21 décembre am ku sone dafa njëkk ñëw ay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 ma woon ko ginnaaw mu topp ma mu dem dugg ci beneen kabin ba ne dafay maasewu mën ne ko dangay maasewu kon xaaral ma woon la yeneen fii mun na ma noonu yow yaa ma fi indi ndax xamoon naa ne yaa ngi fi mën ne ko nan nga ko xame mu ne dama fi doon romb gis ngay dugg ci biir nga jóg ci bunt bi ba dugg ci gi ci biir kër gi mën ne ko sa wax bi day leerul dara kan moo la wax ne ñëwaat naa fi mun na ma déggal rek li ma la wax ne ma maase ma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 ma ne ko déedéet mu ne ma mu jox ma beneen pilule ne ma beneen lii nii bindal ma ci feuille ne ma tu risques de tomber enceinte wala da nga sentiroon ne tu es enceinte wala affaire yooyu bu pare ma ne ko non non xaw parce que bëgguma woon joxe détail bu ba mu ne ma kon jëlal pour fekkee ne tu n'es pas enceinte mën nga jënd pilule yi nga naan ko. Hmm. Hmm. mais def nañ ay prélèvement ci guddi gi.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 Kaane prénatal comme. jigéen wóor duma duma si wax franchement. di nuyu waa Leral TV yëpp di nuyu sénégalais yëpp euh, di am mbégte tamit euh, wax ak yéen euh, par ak li nga xamante ne xew na am na fi. voilà donc euh, li xew nag ñu ñëpp ñoo ko déggandoo te yaakaar naa ni dara bu amee euh, ku ci nekk war nga mën a toog xalaat ba xam exactement mbir bi naka la demee mais xale bi ñuy wax aji Sarr donc euh, xam naa ko parce que bi may nekk président élève étudiant Djirnda amoon naa ay occasion di ñëw école ci ay manifestation donc euh, yaakaar naa ni tamit bi ma ko xamee ba léegi donc euh, li ñu sàkk mooy jox na ma cër jox na ma respect fu ma gis dina ma nuyu te depuis lors aussi vraiment euh, am nañ ay relation yoo xamante ne du ñu ay relation yu bon comme ni ko ñenn yi di waxee donc yaakaar naa ne daal bon xale la boo xamante ne comme ni ko ñëpp waxee chef de village imam loolu daal lañ xam ci moom. Mm-hmm. nga nekk jeune. xamanteeg moom bu baax en tant que jeune moom it euh, problème bi dal ci kawam euh, mu ñu ni nga dégg ñu ni Ousmane Sonko euh, aji nee na Ousmane Sonko daf ko violé lan la la def yow en tant que jeune. bon bi ma ko déggee vraiment metti na ma lool ñawlu naa ko parce que affaire viol dafa nekk loo xamante ne dafa xaw a doy waar donc bi ma ko déggee aussi vraiment. metti na ma ndax xam naa ne aji suñu rakk la xam naa ne aussi ki nga xamante ne moom la accusé viol nekk na koo xamante ne tamit voilà day daa bëgg a doon président ëllëg euh, donc mu doon loo xamante ne tamit affaire bi bu bëree coow walla aji bu siwee buñ ko ñeneen yi ko xamee donc yaakaar naa ne problème bi moo tax ñu xam ko parce que yàgg na nekk fii jàngee Maya ñëw Djirnda jànge fii ba quatrième dem dakaar ci ñu bëri xamuñ ko dégguñ ko mais affaire bi bu yegg yëgsee fii rek parce que ki nga xamante ne moom la ko seqal moo nekk une personnalité dans le pays yaakaar naa ne loolu moo gën a indi coow li mais naqarlu nañ ko parce que li xew ni yéenewuñ ko kenn ba tax na aussi dañuy ñaan yàlla rek vraiment mu def ci ndox mu sedd. yow nan nan nan nga yére nouvelle bi bi nga ko déggee. bon bi ma ko déggee vraiment euh, nekk na lu ma metti woon te doon aussi vraiment surprise parce que euh, am na loo xamante ne tamit euh, képp ku ko dégg day doon surprise ci yow parce que parfois aussi dangay ngay dund ak nit loo xamante ne vraiment. Euh, yaakaaroo woon ni dina dem ba euh, nekk ci yenn circonstances yi donc circonstances yi nag comme ni ko ñëpp waxee bon comme ñu dañ nekk ci dëkk boo xamante ne dañoo respecter suñuy valeur ndax nit boo nekkee ci dëkk di jàng ba jàngatoo il faut nga dem uti yaakaar naa ne nag xale bi ci yoon uti boobu ci la nekk ba daje ak ki nga xamante ne mooy le leader de PASTEF Ousmane Sonko. Mhm. nga xam ko bu baax. dégg nañ paa yi liñ fi wax yëpp. yan relation ngeen amoon ak aji yéen en tant que jeune ci dëkk bi. bon en tant que jeune bon dañ amoon ay relation de de fraternité. voilà donc euh, comme ay comme sama sœur bi nga xamante ne moo nekk ci kër ga ñu bokk ndey ak baay. parce que nit aussi bon bu ñëwee ci dëkk jàng si nga doon étudiant tamit di jàng. am na yoo xamante ne am ngeen ay relation yoo xamante day dem ci li nga xamante ne mooy affaire wu njàng bi mooy affaire wu éducation parce que ñun aussi dañ fi nekk nekk fi pour à chaque fois ñuy saytu élèves yi ci seen njàng pour ñu mën a avancer pour ñu mën a évoluer euh, ñi nga xamante ne àddu nañ ci moom wax lu ñaaw parce que parce que ñun dañ toog gis ay audio di circuler gis ay vidéo di circuler lu nekk ñu wax ko te ñi ko wax yépp ñu ci bëri maîtriser wuñ ko parce que euh, dafa am loo xamante ne comme ni ko chef waxee nit ki bu dee sa mbokk la doo ko waxee noonu comme aji suñu mbokk la dañ koy defendre jusqu'à la preuve du contraire te euh, ñi nga xamante ñoo ci wax am na ñoo xamante ne xam nañ leen ñeneen yi xamuñ leen am na ñoo xamante ne tontu nañ ci parce que dafa am ku wax ba saaga ñoomin kay man loolu moo ma gën a merloo parce que ñun am nañ loo xamante ne moom lañ xam ci ñun loolu la ñu yaree muy ay valeur yu ñuy incarné gëm suñu bopp nag ku nekk nangu liggéey fu la yàlla teg nga dem foofu liggéey te yàlla rek tax am koo xamante ne wax ca ni wax na ci ojo boo xamante ne mu ngi toog ba France ne mooy moo xam aji mooy wax sénégalais yi kan mooy aji wax ba wax ci ñoomin kay loo xamante ne ak fi ñu dëkk jànguñu voilà amuñu xamuñu li xew ci caawun bi mais lemon monde un village planétaire chef chef wax na ko sànq lépp lu xew dakaar à la même minute dañ koy yëg parce que adduna moo doxee noonu te wax naa ko ko ci ojo tontu naa ko ne li nga wax du dëgg parce que xamoo ñoomin kay te temps bi buñ ko mayoon ma defal ko list boo xamante ne ay ñoomin ka lañ ñoo xamante ne ñu ngi ci bio yi ñoo xamante ne ñu ngi un peu partout dans les sphères de l'État di liggéey ci ci ci ci ci réew mi ci administration te yaakaar naa ne lien bi am entre ñun séeréer yi ak joolaa yi histoire Aguène ak Diambogne war na mën a tax ñu jéem a rafetal ni ñuy waxee ci problème bi nga xamante ne moo am. ngir consolider. consolider lien lien yooyu parce que dañoo bokk. dama lay bàyyi nga tàggatoo mais aussi nga lancer un appel ah ñi nga xamante ni ñu ngi wax ci problème bi yëpp ak ñi nga xamante ni ñu ngi seetaan. bon appel bi may lancer mooy di. wax ak jeunesse bi parce que yaakaar naa ne li gën a yëkkati coow bi pratiquement ci jeunesse bi la jógee mu nekk dakaar mu nekk un peu partout dans le monde te yaakaar naa ne euh, ñun jeunes yi ñoo war a defar réew mi ñoo ko war a liggéey am na loo xamante ne bu xewee ña ko seq ñoo wax ndax Adjimo accusé le leader de Pastef Ousmane Sonko. Mm-hmm. yow xamoo man xawma mm-hmm. ñoom ñaar yépp a yooy xam ak yàlla mm-hmm. donc yaakaar naa ne ku ciy wax dangay wax euh, ci li nga xamante ne maîtriser nga ko walla xam nga ko ñu xale bu jigéen bi xam nañ ko mën nañ wax ci moom li nga xamante ne xew na nañ ko jël avec responsabilité ñu bàyyi vraiment justice def liggéeyam ndax problème bi euh, du problème mu du problème politique. problème mu ñaari citoyen sénégalais lañ. te ku nekk ci ñoom danga am ay droit ci réew mi muy aji muy le leader de Pastef Ousmane Sonko te am nañ yaakaar ci justice bi. donc may wax jeunesse bi ñu gën a bàyyi xel bàyyi vraiment li nga xamante ne.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 mu waxaat ko massage ban massage parce que fii nii lii lañ lii lañ fi am tonifiant lañ fi am quatre mais mai neuromassage body body ak euh, jacuzzi mu ne ma defal ma tonifiant parce que dama yàkkamti mën na ko kon tonifiant de 20 000 francs la mu ne ma waa d'accord ci la ma jox 20 000 francs bi ma dem jox ko ki nga xamante ne mooy sama patron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 ñu jënd leen après man ne leen sama bagage yi nga xamante ne ñu ngi ci beneen cabine bi ma wax beneen fii bi na ma ko indil ma daal di génn si guddi gi dem sama yoon daw. waaw fay naa leen maa ngi nuyu waa TV di nuyu senegal di nuyu àdduna bi yëpp di kontaan seen ñëw bi ngeen ñëw parce que Adji Sarr comme ni ko ñëpp waxee mayal la dëkk. jànge fii man mi en tant jigéen xam naa ko bu baax suñu doom la parce que fim mu yaroo fii jir na ñooñu ay doomu ndey lañ li ñu xam ci moom rek laa xam ci moom parce que aji moom xam naa ko bu baax a baax a baax mu nekk fii ak euh, yow nga gis ko mu màggee fii ba keroog muy dem ndakaar mu am lu bare loo ne ni xam nga ko laata ngay dégg problème bi yooyu nga xam ci moom est-ce que mën nga ñu cee wax tuuti. parce que ñun bu ñu déggee problème bi dañoo jaaxle parce que aji fii la nekkoon yaroo fi yor fi yar bu baax parce que ni ko imaam waxee rek jër nag yi li ko dalee ñoo joor ba fayaa ko cent pour cent musulman lañ amuñu benn beneen religion bu dul euh, jullit kon nag fii li ñu fi xam liggéey ak jom njàng kese lañ fi xam kon nag aji li ko dal nii def ñu metti parce que yarewuñ ko loolu ñi koy sosal nag xamuñ ko ku ko xam mooy ñii toog ni nga xam ne ñoo ko yar ñoo ko gën a xam parce que li fi dund dund ko Dakar Dakar bu dee dund na fa ay quelques années rek la deux ans trois te xam naa ne aji munut a baaxee fii dem toog Dakar deux ans wala trois ans bon loolu mënut a nekk bu bonee ñi ko bonal moo ñi ko ñi nga xam ne ñoo ko jël pour employé di ko dugal ci loo xam ne moom xamu ko yarewuñ ko loolu ngeen xam ne nag aji Sarr du nit ku bon yarewuñ ko loolu ñun waa jënd gi xamuñu loolu damay wax nag en tant que jigéen dégg naa député yu jigéen yoo xam ne dañuy ŋàññi Adji Adji nit la kom ñëpp jigéen la comme ñëpp dëkk Sénégal njaay gii Sénégal gii gis nañ fi lu ne lu gën a bon lii gis nañ ko fi li tax ñu koy siiwal nii nag dañ xam ne Ousmane Sonko politicien la grand politicien la nañ xam ne Adji nit la comme ñëpp jigéen la comme ñëpp jigéen ñi dañ ko war a jàppale xam ne kii xale bu ndaw la xale bu ndaw bu majoré gu amul ndey gisul ndey gisul ku ko jàppale mu dem liggéeyi pour lu mu fajee soxlaam li mu dimbalee mbokkam ba li jot ko dañ ko war a yaram dimbale ko aji bonul ci benn côté man mi jigéen laa xam naa ko bu baax dafa ñëw sama place ba sonn ñuy waxtaan ma xam ban genre nit la bu bonee borom place boobu moo ko bon la waaye aji bonul ñi koy wax ne dafa bon nag ji ko jiiñ ñu xamuñ ko bu ko gisee benn yoon wala ñaari te aji mënut toog jiir na cinq ans six ans sept ans ba nu fi dem Dakar deux ans nga bon loolu mënut a nekk. Ah, loolu daal laa xam ci moom aji nit ku baax la ñi wax ne dafa aji dafa bon xamuñ ci moom daal. waaw audio yi sax dañ ciy taxaw tuuti ndax am na ci ñoo xamante ni yëkkati nañ kàddu ne euh, jiiñ nañ ko sàcc fii génnee nañ ko nit ku bon la euh, bi nga ko déggee yow en tant que jigéen euh, lan la def. am lu rek parce que man xam naa ne ndee ma jur juruma nag waaye xam naa ni bëgg naa jur comme. ku mel ni Adji Sarr bu ma juree tamit du ma ŋàññi benn doomu jàmbur dama koy suturaal bu defee loo xam ne du noonu dama koy suturaal kon nag nañ suturaal Adji jàppale ko ñun jigéen yi nga xam ne kii xale la amut doole dañ ko war a jàppale ci lii mu nekk nii waaw loolu la. lan ngay wax euh, askanu Sénégal ak ñi lay seetaan. waa ñi may seetaan dama leen di xamal ne Adji Sarr nit ku baax la daal li ma lay wax ni Adji nit ku baax la. nit ku jullite nit ku xam boppam nit ku bëgg boppam nit ku respecté mag mm-hmm. loolu xam naa ko ci moom bu baax na ko Sénégal jigéen yi jàppale ko Macky Sall ak gouvernement am nañ protéger aji Ousmane Sonko ak mbooloom nañ bàyyi aji Sarr ñoo ko tooñ ñoo ko dugal ci loo xam ne ñun xamuñ ko waa ñiy wax ne ñun séeréer yi xamuñu dara ñëw ngeen jiir na ba xam gis li fi nekk. Mhm. Sénégal kenn dofatul Sénégal ñëpp a jàng li nekk dakaar moo nekk fii parce que fii lu ngi waa dakaar xam ñoom ñun loolu lañ xam lu nguur gi xam ñun xam nañ ko parce que ñun dañoo jàng di dox ci développement di dox ci culture ak aada ak cosaan xam nañ lépp ñun kenn fii kenn dofu Sénégal kenn dofu fi. asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp nuyu kilifa yi nuyu waa Djirnda. nuyu nuyu leeral TV kontaan nañ trop ci bés bi ndax Adji Sarr suñ doom la Adji saar pàppam suma rakk la Maya foofu lañ ko yar mu indi njàngam jeexale ko suñ loxo fii suma rakk bale toog moo ko yoroon fii kon aji waa Jirnda la waa arrondissement Niodior la waa département Foundiougne la waa région Fatick la Sénégalais la comme tout kon aji fu mu juddoo benn diina rek moo fi nekk muy islaam fi mu juddoo aussi chômage amu fi ndax ñëppay liggéey kon fi juddoo màggee fi caaxaan amu fi kon aji ñu ngi ko yar fi ñu ko war a yaree comme fi ñu yaree ñun ñëpp foofu lañ yare aj bi mu ju mu jógee suñ loxo dem Dakar yar boobu la am jullit la taalube la daf doon nuyoo su la nuyoo sax dafay sukk nitu jàmm la ndax ñun xamuñ ko ci histoire mais na xale la comme xale yëpp yàlla jox na ko nag mbindam jox na ko succès ndax aji su fi jaaree rek dangay gis moroomam ñëpp na ñuy def kon mun nañ wax ne nit ku baax la nit ku yaatu la te fi may waxee nii dafay génn si bitis waa Jirnda yëpp gis ko te man maay seen chef de village te wax dëgg yàlla war mu ma toog ci tele waa ji ak confiance bi ñu am ba def ma chef de village ma wax loo xam ne xaw ma ko mbala may wax loo xam ne waxu soxla bala suñ ko déggee dañ le kat suñ kilifaay li mu wax du noonu loolu moo tax ñu ñeme taxaw si télé bi su nekkoon si beneen façon nañ am beneen façon buñ ko bàyyi ndax soo amee sa doom képp ku doon ñu koy toroxal di nga bañ loolu loolu moo tax lépp lu si ner nit pare pour def ko aji nu pare nañ la tontu pare nañ la aussi defanteew ak ak ñoom. dëgg la euh, aji fii la nekkoon euh, fuy euh, fële la la yaroo ci maamam mën nañu xam ni yan circonstance la ko maamam yaree ba mu màgg. xam nga famille boobu gis nga gis nga seen kër naka lañ mel. famille boobu famille bu yaatu la ñoo xam ne si liggéey rek lañ leen xam kon du ne aji donga nekkoon lu mu mot fanweeri xare mu fa ak seen baay ak seen famille kon famille bu mag la nga xam ne si liggéey lañ leen xam ak yar ak teggin ndax ku xam coocoon mbin masa lañ koy wax ñooñu duñu ay caaxaankat ay jàngkat lañ ay mbaalkat lañ comme ñun ñëpp ñoo bokk benn métier bi ñuy def ci dëkk bi ñoom soo gisee fekk lañ foofu ñu nga ji feer di fa liggéey peut su ngeen dem mu ngeen a jaar ci famille ba ngeen gis leen waaw li ñu wax c'est très clair lu leer la am dara luñ ci war a nëbb mhm. xam na yaayam euh, walla bi muy dem di jàngiwaat Ndakaaru fekk na yaayam génn àdduna waa fekk na yaayam genn àdduna waaw bu mu jogee fii di dem ndakaar mag yaayam moo ko jël si woon waaw am na loo xam ne su nga bi ngay demee si war leen ko wax ndax dafa am yenn saa yoo xam ne di nga ko fekk xam ko yenn ko xam mais li ñu wax xam nañ ne mag yaayam moo ko yóbbu woon maire bi loolu parce que bi ñu dégg dégg nañ ñu ni maire bi daf koo génnee waaye euh, maam ji moom weddi loolu ba set nee na génneewu ko dafa ñëw tàgg ko ne mag dem ci magu yaayam. waaw comme maire bi waxal na la ko. keroog aussi wax nañ ko nee nañ leen ne kenn dàqu ko comme kenn dàqu ko maire bi wax na ko waxaat naa ko su ngeen demee foofu aussi feneen loolu la ñu wax nit loo am sa doom même su jubadee doo ko mun a dàq ndax fan fan nga ko dàq ak si kan nga koy yóbbu am na wax yoo xam soo ko déggee rek war nga xam ne am lu maanaa ndax nit du jur nit ba pare dàq ko ne dema yaay jàmbur mbara ay parents jàmbur am na wax yoo xam ne. suñ ko waxee nit yow sa bopp war nga xalaat est-ce que wax bi am na maana mhm. balaa ñuy ñëw ci ñi nga xamante ni ñu ngi yëkkati ay ay kàddu jëmale ko ci ci Adji Sarr euh, bi ngeen déggee mbir mi problème bi num leen def. communauté bi yëpp la naqari lu la dalee jirna be faya ko ñun ñuy bokk suñ il bi daf suñ na bi d'abord ndax doomu jirna lañu xu ñu suturaam moom la ñu ŋàññi kooku amul kenn kum neex peut-être ko xam ne. yoro deretu jir la mbara nga ne ko xam ne mënuma la expliquer lan laal ko mun a ko mais nga lay daal ndax koo gis am nga doom boo xam ne tolloo na ak aji mbara jarbaat mbara sarak te ñu nii fii ba fayaa ko benn bopp lañ benn famille lañ donc kooku buñ ko déggee dañ ko naqarulu loolu moo taxoon am na télévision bu fi ñëwoon TFM yaakaar nga dégg ngeen ci ñuy wax ñu wax ci wax kan mooy aji wax ko wax leen fan la juddoo fan la màggee def fi 17 ans genn dans 3 ans nga nekk ko xam ne yaa gën a bon si Sénégal est-ce que boobu mun na ko nangu. te 17 ans yëpp c'est une fille exemplaire maanaam. yaa ngi toog dem nga ma mayaat dana ñeneen dañ ko wax fii la yaroo kii moo ko yoroon. donc nag duñ toog télévision di sos waaw ay waajuram lañ te liñ ko yaree lañu wax xam nañ aussi koo xam ne koo ko gis bëgg ko la waaw mhm. coow li bari lool ñu bari ci ay ñiy wax ne ay mbokkam lañ di def ay ojo di wax lu ne ñu ngi koy wax eh, ci ci ci ci ndoddam yéen ñi nga xamante ni yéenee ko yar coow loolu bi ngeen bi ngeen di dégg audio yooyu lan la leen def ak yan yan éclaircissement ngeen di apporter ci yooyu la. metti nu lool te ñu xam ne ñu xamal nit ne ku nekk am nga mbokk te ku nekk xam nga ne wax yi ngeen dégg audio kenn du ko wax mbokkam sa mbokk ak lu mu am ñaawte ak nu mu mel amul kenn ku ku ñuy sutura mbokkam. si télé mbara ay audio ñi koy def nag ñeen ñi xam nañ leen ñeen ñi xamuñ leen mais a ah, dañ ci aw ñoom yoon ndax soo bàyyi sa mbokk boo ko ak nit ki waxal ko loo xam ne sénégalais yëpp degga nañ ko ñun su joxe si li dañ leen porte plainte de ñi xam dañ leen porte plainte ñi xamul dañ essayé pour xam leen ñi xamul nag dañ la porte plainte dañ la def contre x ndax li tax man maa ngi jàkkaarloo télévision kon xam nga munatuma nopp suma jëm munatu munatuma nopp suma suma kaddu nga ne mbokk nit ki nga kom femme bi wax ne u ne eh, jabaru nijaayam la ñun de buggoon nañ mu def nuñ def joxe turam joxe turi jakaram loolu ñu tax ñu ne montage la moom femme bi dañ ko monter dañ ko jox alal boobu muy wax pour mu wax si kaddu loolu dafa yomb mais ñi nga xam ne ñoo ko seq nekk mbokk aji ñun ba foofu def nañ recherche mais xam nañ ne ñoo sax biñ ko degee sax catégoriquement la ñu wax ne loolu mënut a nekk amul benn mbokk aji boo xam ne dina wax loolu wax kooku moom ah ñu ngi koy seet ñu ngi seet. naka lañ ko gisee mais xam na duñ ko gis ndax bi muy wax loolu sax tolluwul ci feer yooyu ay montage lañ loolu loolu weddi nañ ko ba keroog muy wone boppam wax turam turi jàkkar ji ñu waaw. Euh, lii yëpp euh, dafa am lu nga xamante ni moom moo ko moom moo ko sabab mooy. Euh, viol bi nga xamante ni sàkk bi nga xamante ni aji <clears throat> wax na ni moom la ko Ousmane Sonko sàkk euh, viol euh, mu nekk loo xamante ni des fois boo koy wax ci askanu séeréer day xaw a doon lu lu lu garaaw lool ndax yar bi ñuy yaree doomu séeréer si valeur yooyu noonu ñi nga xamante ni moom la ñu doomu séeréer si mun nañ nga ñu ci dikkalaat tuuti. waaw xam nga àdduna day dox. jullit nag. waanaa bi may dépanne gox bi ñu dëkk arrondissement Niodior benn dina mu nekk mooy lislaam donc bi nga fi ñëwee ba tey nodd rek ngay dégg ak julli si loolu la ñu yar mais ba bi aji di jóge fii dem Dakar liñ koy waxal xamuñ ko si moom te yaruñ ko si loolu ndax wax naa la si famille bu mag lañ ko yar wax naa la loolu. waaw. Euh, lan ngay wax euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo lay seetaan nga tàggatoo ak ñoom. waaw li ma bu wax mooy na euh, Sénégal yëpp def attention ndax métier journaliste am na ñoo xam ne ñu ngi si wax lu ëpp te ak dina boo munti nekk ku dul wax dëgg de yàlla rëbb na ko. kuy waxaal doomu aadama loo xam ne du dégg moom yàlla rëbb na ko kon bëggoon naa certains wax yu ñu wàññi ko certains audio yi yu bàyyi ko ndax nit su nekkee dégg ñoom xam nañu bokkuñu ak aji man maa ko wax mu leer bokkuñu ak ñoom te loo xam ne waxoon nañ am nañ confiance ci justice Sénégal ba yëf yi bàyyi nañ ko si loxoom ndax aji moo porté plainte du keneen Ousmane Sonko nekko ne moo ko violé viol nag am na xam nañ ci ñaari façon mooy jigéen ak nu mu def soo ko forcé def ko si boppam loo xam ne nangu ko loolu viol la ak viol fekk nit ki ndaw mais waxoon naa keroog ne aji li ñu wax dañ ko gëm jusqu'à la preuve du contraire. ñeen ñi nee nañ aji euh, am na doom. non yëpp dégg nañ ko abdi aji am na doom aji amul doom aji mosta sëy yooyu yëpp ñu ngi koy wax aji am na doom aji sey na yooyu yëpp aji amu ko sëyut xam nga Sénégal léegi ñun yëpp comprendre nañ ko. ndax wax wax boo xam ne du dëgg moo leen genal waxu dëgg daal te Sénégal aussi war nañ comprendre ñu bari lu ñu lu ñuy def mooy jaxase rek mais ku am njaboot am famille yeneen wax soo ko soo ko déggee war ngaa seet sa bopp est-ce que sa famille dinañ wax loolu te ñun duñu famille boo xam ne dañ koy foye de waaw wax dëgg yàlla bëggoon naa ñu bari respecté seen bopp ndax waal nit ki lu dul dégg aussi comme ni ma ko waxee ñooñu aussi wax naa leen ne après nañ leen topp si yoon de niñ si xam ñi si amul aussi ñu ngi fexe ndax dara soo ko xëyee ba di ko waxee war ngaa présenté wu wax man la diw comme ni ma def nii war ngaa présenté wu am ne man la diw wax ko wax bu leer mais soo koy wax si kanam boo xamee nangoo joxe sa tur naroo loolu yomb na ku mu neex nga def loo su ma neexoon san télévision ma ne may may may Pape Ousmane Sonko waxal ko ay jikko kan moo ne du moom mais loolu sañu ma ko ndax jullit la te du ma sosal nit te duñ duñ leen fenal déggoo suñ benn famille ŋàññi Ousmane Sonko ndax mu ne bëgg nañ lu mu leer daal. bëgg nañ mbir mi leer d' accord bi Adji Sarr la wala du moom. non du Adji Sarr. photo dañ koy monter montage dafa bari su photo mun nañ ma jël su dugal ma si mbaam mun nañ ma jël dugal ma si fas. d'accord Sénégal war nañ xam ne appareil lu neex nit mu def ko mais li leer su neexoon aji comme xale yi jigéenu Sénégal yëpp gis nañ liñ sol pantalon culotte slip su ko nee mu doxee ko ndax am na droit am am na liberté am liberté loolu ak mbon bokkut. jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm. merci beaucoup. Enfin prendre le temps de lire et de s'informer véritablement. Détente, loisirs, l'actualité. ay xibaar yu wóor ak ay journalistes yu xarañ. Aimez l'actualité avec les plus belles signatures du Sénégal. ay reportages yu yéeme. dama ne télé bi ngeen doon xaar tàkk na de Leral TV 100 pour 100